lima population bi jox moma gëna lima kenen di jox te soxlu ma falu Macky Sall. bu ko poste ministre. lan lay dee ministre naan la monsieur le ministre. bo ci tégal la ci sëriñ bi. nek talibi Sëriñ Tuubaa moo gëna ministre Macky Sall ministre du dara autour la wo xamanteni tay ñi nekul ministre sax ñom lañ gëna jox ci ci mi nek ministre te ministre Macky Sall yi nga xamanteni tay amna ño xamanteni tay bo leen gisé da nga leen di yërëm bu ñu dem taxe la jël ministre Macky Sall xam nga lolu <laughs> mo lay wone la ministre euh, Macky Sall amul ben tiak tay nga xol ancien ministre Abdoulaye Wade hmm. bu ndeme ci xew ñom lañu gëna jox gëdd ñom jox lañu jër ci ministre Macky Sall ak tel sa ndax amuñu bayra peut-être loolu crise de leadership lay doon. waaw crise de leadership boobu nag imagine tey jii man yow dégagement bi ngay dégagé ñu jox la poste ministre mais dégagement bi may dégagé li ma ko may première chose mooy li ma nekk maanaam Serigne Touba Serigne hmm. Touba jur sama maam hmm loolu moy premier poste bi nga xamne du folli ko moom la soxla ñaari moy population jox na ma pal go xamanteni ni. Hmm. allah kulli alim du fi jógee moy Cheikh Abdou Mbacké le Touba tan mu taw ensemble national hmm. di fa kaasa Serigne Touba di fa population Touba man ma ñik dik sama cadeau ensemble hmm. national bala ñoo yëkëte cadeau sant Serigne Touba ma ko njëkk def. ma tax ba Touba fayu ndox. ma tax ba nga xamanteni tay tey am ay projets yo xamanteni tay bëggoon nañ ko génn wa Touba yobbu ko fenen man tax ba loolu amul population lama la ma waral loolu yëpp def na ko ba pare jël sama salaire may ko wa Touba man may député bi ko mas def. kon japp na ni. lolu moma ma gënal foofu ndoolan limi kay def te 2024 ki nga xamé ne jitté ensemble sama man lay doon ndax ki may andal moy gagné moy moy gagné Sénégal te bu gagné Sénégal may nek président ensemble sama nek président ensemble sama ko xamante ni histoire ku sante mbacké c'est la première fois mu jitté ensemble sama te man lay doon. Pape Diop mooy gagné Sénégal. coalition bi ñu àndal ñun ak Pape Diop ñooy gagné Sénégal. te Pape Diop mooy gagné Sénégal ndax coalition lay doon. d' si gouvernement di d'union nationale bi yow noo ko gisee gouvernement boo xam ne. Euh, non gouvernement tappale laa ko gisee gouvernement tappale gouvernement wor. gouvernement boo xam ne diil. Hmm. noonu laa ko gisee mooy loo xamante ni daal fal nan ko nan ko bàyyi mu continuer

seen bëgg-bëgg maa ngi ci lu ma am Touba la jëm nu ma mel Touba ma ko melal lu ma am tamit Touba laa ko amee Touba tamit ñoo ma gënal lépp waa Touba ñoo ma fal pour ma nekk député ñoom lay taxawal doo ko taxawal nekk député euh, Sénégal kon loolu mooy li nga xamante ni moom laay wax mooy état bii may wax yow. muy hmm. gouvernement Macky Sall soxla lu ma leen dara dara dara loo xam ne lu jóge si ñoom la. luñ may doli wala luñ may jox te population bi moomuñu ko. pare woo pour dem APR jité Touba. <laughs> maanaam yow nak xamna ni lool mom moy <laughs> non non honorable dama lay laaj aw saga la ci man la rek ndax xam nga yow ni ma ni ma toll. ñu jox la Touba nga koy coordonner lu tollu ni Touba. ni ma toll ci rew nga jité Touba. tollu ko ci Sénégal tollu ko ci Touba. Hmm. sama ngor man muyu ma wor man duma koy wor ki dara la jo xam ma nga tamal suñu wajur 90 la nek député Abdou Diouf jënd ko Ousmane tanon Dieng yàlla na ko yaram indi téméré million sëñ Baara woñu suñu kaw état bi. Mhm. mu ubbi walis wi. pour ñu jënd ko. mu ni man kenn duma jënd bu doontoon ki nga ànd naa la toroxal ma ngi tok mais ñun duñu ñun duñu ko ñuy jënd Macky Sall ma milliard si campagne bi pour man ma gën dëkk bi lolou na la ko wax tay milliard pour ma baña nek ma baña campagne. élection présidentielle milliard waaw nga tok bañ. baña campagne pour baña pour mu gagner Touba. pour mu rafler fofu waaw lan mo non sa réaction. sama réaction moy duma ko def sama ngor la mais man ngor la dafa am lo xam mom lay doxé moy man leadership la bo xamanteni département Mbacké man la askan wi gëm. jéem a leen si négocier ben affaire sa nga ne ko waaw on va essayer de voir monsieur le président. man amna milliard lu may dee milliard Macky Sall am sama milliard am sama ngor mom gën milliard Macky Sall mu jox mako mu jeex.